waaw mbokk yi balaa ma leen digtal kàddu sëriñ bi mu leen xel nguur gi fi nekkoon nguur googu soxlaatuñ ko fi nguur gi fi nekkoon di jàpp su ay doom di leen tëj te defuñ dara lu dul xeex injustice xam nga leen xam xam nañu leen bu baax nguur gi doon jënd ay armes di dal ci kaw askanam soxlaatuñ ko fi. kon bisimilah di déglu kàddu sëriñ bi bi muy dénkaane si élection ki ñuy jiital ci réew mi nu mu mën a doxale rek ñi ko tànn am nañ ci responsabilité bu rëy ndax ñoo waral muy nekk ci bokk réew mi di def liggéeyam kon yow miy tànn sa njiitu réew war ngaa xool war ngaa settantal war ngaa gëstu ci ki nga bëgg dénk sa réew. xamal ne kat sa ëllëg réew nga koy dénk sa ëllëg yi bopp nga koy dénk kon war ngaa bàyyi xel ci ndax ku jub la ndax ku maanu la ndax ku man li nga bëgg la ndax kuy sàmm sa ëllëg réew la ndax kii réew mi ñor na ko ndax kii nguur rekk nguur rekk ñoru ko question yooyu yépp ak yu ni mel war nga ko laaj sa bopp te bañ a yam rekk ci déglu wala liir programme ñi bëgg ku leen dénk jikko yu rafet yi ñu waxoon sànq ne noonu la njiit war a mel ñoo gën a mat a tànn njiit waaye bu ñu xool xeet bu ñu xool tarixa bu ñu xool ngir bu ñu xool intere personnel nañuy xool intérêt collectif muy li ñuy bokk jariñ ñun ñépp te mooy réew mi jëm kanam segam fii lañu dëkk moom rekk lañu am mënuñu ko génn jëm fenn bu neexee fi la ñuy dunde bu naqaree fi la ñuy dund kon war nañoo xool bu baax ci loxo yiñ koy teg képp ku ñu jiital ci réew mu lëggee fi lëggee bu rafet bu ko yàlla di fay ñi ko tànn dinañ ci am wàll bu fi nekkee bakkanam nag di def lu ko neex ñi ko tànnoon dinañu am wàll ci xàq ya mu ndax ku aalee ñaan bàyyi mu lore ca am nga ca bàkkaar yow mi mën a wate toog sa kër ne sa yoon nekkut ci wat wala tàyyee dem wate ji wala bañ ci ay coono ku fi mën a toog ci réew mi di defub safaan am nga ca responsabilité ndax sa carte woowu yi nga teye bañ ko sànni ji mënoon naa soppi lu bare mbokk yi noo ngi ñaan yàlla dolli ñu dimbale taxawu abonné leen gaaw ci seen chaîne JPS TV Grand Dakar chaîne patriotique la abonné leen leen fàtte abonné